waaye li ñuy xaar ci moom des na. gis nañ daal mi ngi jéem a sàmm kàddoom lu am solo ci kilifa. waxoon na ku fi lekkoon alalu mbooloo mi di nga ko goxat ma ngi ci yoon wi. yow gox ko ma ma di nga ko goxat ma ngi ci yoon wa mhm. euh, waxoon na fi dina wàññi dundu askan wi defe naa da koo cof rek. Mhm. ba tey dépense ak yi seer li ma ci tiital sax indiwaat nañu fi mu ne nguuru banque mondiale ak FMI. Mhm. dañuy dogal ba dégg naa ñu naan ñu courant moom dañu ko yokk. <laughs> en 2013 non fin 2013 yi amoon seen bourse ak seen aide. ci li ñu wax. dañu bëgg ñu ñu coupé ko ah. dangaa xanaa Macky Sall nangu loolu bokk mm-hmm. parce que loolu day indi fitna ci réew baaxul mm-hmm. xale yi étudiants yi moom ku leen yokkalut bu leen wàññil mm-hmm. mën naa indi fitna boo xam ne baaxul ci réew ak ci jàmm réew mi euh, gis naa ne aussi euh, borom dëkk amoon payoor coupé na ko seen tas ci ku digga yaakaar ñi amoon borom dëkk yi joxoon ay oto pour ñu koy ñëpp di koy di ñëw nangu oto gis naa loolu gis naa ne aussi euh, askan wi ñu ngi ñu ngi leen jege ji di waxtaan ak def ay conseil ministre yoo xam ne ni eh, lañ digge yëpp bu ñu ko defee réew mi de na yokk mhm. ndax ndax digg la juy jur jëfam déet maa ngi leen di bàyyi ay at pour atte leen xool xool la ñuy defee mhm. en tout cas daal mën nañ jàpp ne mais li ma ci amal solo nag mhm. te loolu vraiment loolu rafetlu naa ko mooy tëll tëll ji wàññeeku na sutura. oui oui commencé na am waaw euh, wanewu. Mm-hmm. wàññeeku na extravagance beeg. non xam nga pasar pasar. wàññeeku na. <laughs> te aussi Macky ni mu faloo. Mm-hmm. wan na Sénégalais yi ne du alal. Mm-hmm. moo joxe nguur. ok ak jëfin ak doxalin la waaye nit ñi amul njëg kenn mu leen jënd. Ah. te aussi defe naa ñu ngi delluwaat daal ci euh, dundin. gu méngoog ñàkk gi nga xam ne ni la ñàkk ba ba mu commencé am am utin gi gën a gaaw gën a taaru ngir nit ñi mën leen jikkoo parce que dafa loo xam ne jekkul daal di puukare ci réew moo xam ne am na ko njëluwut am na ko dépend am na ko xam ne ba ma euh, euh, ngi wax ne ku guux nga gox ki euh, noo ko waxee yaa ngi yaa ma gën dégg olof non non sa non c'est-à-dire que da ne woon ku fi wan na alalu jàmbur gi dañ ko goxaat waaw léegi yow est-ce que gox ki nga yow yow gox ki go wala kenn woowu la kenn jënteegul naa la wax leen na xam nga hmm. man de nit mën na maa jéem a jaay doole ci politique hmm. wala sama liberté de ton wala bañ am ci man loo bëgg. waaye yàlla bi ma tiim xam na ne bu moom mi xam fi ma toll ak li ma am ak ni ma yàggee ci nguur boo ko waxoon doomu aadama yi dañu xale bi ku ñàkk ful la ku ñàkk fayal la kii rusul nañu xam nga man may digg ay milliards ma wax la boog yàlla ma tiim man mosuma am compte ba am fanweeri million. yow mii mosuma koo am. 30 millions. mosuma am compte ba am 30 millions mosuma am yoo xam ne ni xaalis bu ñu boolee moom moo la ko sama bopp mosuma koo am. nekk te weeru. ko yàlla ma tiim damaa or. mosuma ko am parce que dama gëm ne bu nekkee jullit nga di politique judd ñàkk xam sa devoir bu nekkee lu ñëw nga dajale boole denc am gu rafet amin gu ñaaw nga boole lépp am loolu bokk ko doomu aadama yi olof Njaay dane bu nekkee bu weer dee nga fay ko mën a fay sa ñaar fukki moroom boo ko lekkee yow kenn di nga fët di nga fër wala di ko goxe wala di ko wala du yàgg say loxo waaw mais mais. man xam nga xam nga dafa loo xam ne xam nga euh, soxna si bu ñu la bënti nag. Hmm. ministre bu normal. mënoo mënoo bëri alal quand je alal mënoo am ay milliards. alors on est d'accord. mais xam nga. mais c'est pas ce qui se yow sa kër gi rek monsieur le ministre sa kër gi yeeg. sa oto yeeg. fi ñu doon nekkatoo ministre waaye. Euh, oto bi ma jël leen teel sànq rek. ak yeneen ak yeneen yu bakkan yi nga yor. moo wax leen euh, soxna si salaire mayu la ko kër gi ak fi nga nekk fu mu fu mu bakkane fi nga nekk nii kër gi lu mu bon bon man je suis pas nekk du ma expert en la matière <laughs> mais kër gi lu mu bon bon soxna si wax leen cent millions yi tagg na non non soxna hmm. mun xaaju ko mat sax xam nga soxna si wax leen loo xamul hmm. kër gi deux cent cinquante mètres carrés la deux cent cinquante mètres carrés waaye li ci nekk yëpp nag deux cent cinquante mètres carrés hmm. mooy kër gi ma dëkk nii te man aw ma kër gu ma luy xam nga lu may dundee man bu bés bés bu waree université mooy jàngale lañ ma war a fay lu la war a dundee. université ma amoo fa un million yu mat nag. ma sëñ bi franchement nag mënoo ma mënoo ma gëmloo nag ne wax dëgg yàlla mënoo ma gëmloo mënoo ma gëmloo nag ne wax dëgg. mais yow moo tax ma ne boo bëggee taxaw am 30 millions. amoo ay kër yoo luyeeg. amoo ay biens yooyu c'est incroyable. soxna dëgg lu ma la wax. Hmm. mën ngaa gëm mën ngaa bañ a gëm. Hmm. man damaa oor yàlla mu ma sàkk ci moom lay delluwaat gisuma doomu adam ma jaral wax ci sama koor ak yàlla loo xam ne amut pour lan ragal nit ba yàbb yàlla du ma ko defal benn doomu aadama mm-hmm. loolu laa bëgg mu leen d'abord bul fàtte ne Abdoulaye fukki ñaar def ci at nguur fukki at yeeg benn nekk naa ci lu jege fukki at ministre la des ba pare am liggéey di le salaire n'est pas important dafa ndànk dafa mais mais. salaire tamit euh, assistant nga c'est pas c'est pas un salaire faramineux quand même. mais salaire boo jëlee ko ba tey. salaire ministre ay fay ko. mais parce que pour six encore. six mois jeexagul xam nga loolu li ma bëgg nga xam li ma bëgg nga xam mooy. sa bu neexee na nga jëm fukki at ak benn koo nekk ministre. ak lañ la fay na mu toll. nga xool lan la. waaw d'accord léegi on léegi ñu ngi fii nga xam ne sa bureau la ah sa kër lañ nekk sa bureau la donc man damaa bëgg lecture trop te gis naa ne. fii macha allah euh, daal euh, c'est le temple du savoir. Mhm. donc bi ma yor nii euh, Hamza mooy Charles de Gaulle leçon de commandement dama ko jël ni au pif alors Charles de Gaulle defe naa ni li nga wax nii acte sànq ne yaa ngi prépare ay affaires. Mhm. donc ça ça entre en droite ligne. xam nga. Sénégalais bu la seetaanee dañu foog ne dañu ci déggoo alors ko da ngaa daa bi <laughs> ko jëlee xam nga man li ñuy wax traverse du désert. waaw mos naa ko 2007 diir bu gàtt. oui mais même pas deux naa ko li gars wax. waaw waxoon lay wax ak mm. yàlla buy defar day mel ni kuy yàq. Mm. bu ñu naan traverse du désert ba mu ñàkkee nguur ga. Mm. dem dëkkam colombe de deux églises dem ba néeg ba muy fanaan sax mënu ko chef bu baax ay ñoñam bàyyi ko. di ko xarab xeeb ko jàpp ne jeex na ku yóbbu na ko ñaanal waaye ko moom suul nañ ko ci politique jeex na. Mm-hmm. fa toog gëm la mu gëm di xalaat jàpp ca la mu jàpp dëggu gore ba président ba nekkoon France defe naa Renaud la. Mm-hmm. jamono dafa dem ba benn jamono France jaxasoo lool moo ne ci tubaab faisons appel à l'illustre fils la France. Mm-hmm. Charles de Gaulle boo dogoo ci leen gëm ko jéemoo ci nax borom parce que mënoo koo nax. te nit ñi tax laa jóg ak def lu baax ak jàppale doomu adama yi fu ñuy defee lu baax di ko fekkee fu ñuy utee ñu baax dañ la wëri fu ñu baax taxaw dañ nga fa bokk lu la yàlla def rek <laughs> ndog la boo xam ne euh. nattu la boo xam ne la ciy natt xool noo toll ci moom ak jàngal la ci doomu adama yi ni ñuy jikkoo mm-hmm. ngir nga xam ne nit ñu bari bu ñu la semee la nga doon a tax waaye lu nekk ci yow ci jikko ak xam-xam wala mën voilà je crois que c'est un très beau point final <laughs> <laughs> à cette émission euh, donc ñu am mbégte vraiment euh, dalal ko ci émission bi ndax euh, comme nu ma ko waxee rek c'est c'est quelqu'un qui est très pertinent sur le plan des idées te yi mu wax nii tamit man wax naa sànq ne je suis très surprise ndax xaaruma ko woon ci lii mais xale dafay màgg donc màgg na léegi e c'est normal aussi que mu bëgg li mag yi bëgg mu bëgg ko ndaxte loolu jaadu l'appétit vient en mangeant et lui il a eu le temps de de bien creuser <laughs> <laughs> donc li nga xam ne euh, daal mooy ba mooy mooy bëgg-bëggam donc euh, bu dee mooy gën mooy li gën si yow yàlla na si yàlla jàppale ñu leen di remercier yéen tamit mbokk yi ñu doon seetaan euh, ñuy jaajëfal lu bari si fii nag tàng na trop ñuy jaajëfal lu bëri <laughs> sunu partenaire nga tàng na léegi xam nga da nga fàtt ne nguuru Macky Sall dañ ne <laughs> dañu dund dund oxsat waaw mooy mag tuuti gone dara waaw loolu facture daa cher moo tax dañuy ah, toog di ñàkk di fomp rek. te yow léegi yaa ngi ci chômage. Euh. xanaa ma abal la leefaa nga upp rek. <laughs> donc <laughs> émission bi noonu la donc may remercier euh, euh, sama partenaire yi. Euh, ci coiffure bi euh, ak maquillage bi complexe euh, Sophia la ci Mamel aviation sama mag ju baax jooju fàttalaay kenaa ma koy remercier di ko jaajëfal lu bare bare bari di jaajëfal aussi sama équipe technique bi ma àndal donc muy Hamza Diallo gis nga équipe nu mel yow sa bopp dangaa jaaxle <laughs> ci équipe bi donc euh, Ramza Diallo Ibou Cissé Malika ci montage bi euh, nee na boo wax turam naa ne donc euh, l'homme l'homme inconnu donc mbokk yi face to face la woon ñu am ñu amaat mbégte dala dellu soit ak yéen beneen dimanche ak beneen kàngam jërëjëf